Doudou nuyu naa. maa lay fay Ousseyn. ci loone waaye sant yàlla alhamdulilah. am na al. bi yaay maa raw. <laughs> foo toll. waaw ñu ngi rek. gars yi ñi proposition nag. ñi nga am yaakaar lu sotti incha allah léegi rek. li ci bëri nag ma sa combat bi ñu mujjee wax sa diggante ak caat yaa si moom la yàqoo billaahi man combat du yàqoo si man. gars yi man wax naa la ko nekk si plateau di wax nii rek. coow nii ñuy wax ju bëri. mais bu dara desul lu jël avance walaay dañuy daw te ñoom ñoo njëkk a déggoo promoteur ñoom déggoo promoteur bi presque trois jours ñu ngi wax a promoteur après ñoom ñu demaat ba ci ne dañ leen yokkal xaaba ab genre yooyu. te promoteur yi lay woo sa diggante ak moom la ñu wax wala dafa am benn adversaire boo xam te ñoom la koy proposé. non ñun nekkuñu fi pour rek da chaque jour ñu ngi ñuy woo dañuy wax ay adversaire xëy na yenn adversaire dañuy wax yenn adversaire yoo yii du ñu yii problème mu prix doon te làmb moo baaxoo noonu quoi mais ñu ngi ñuy proposé ay adversaire yenn adversaire baax na waaw am na adversaire yu ñuy proposé yu baax yoo xamante ni si ay différence de prix lay doon yenn yi moom yenn adversaire yoo xam ne ñoo bëggul quoi. léegi fi mu toll nii fi mu toll kan ñan wala boo kan moo la ci gënal. waaw man instant yii nag moom xam nga aw ma xam nga làmb moom dafa toll foo xamante ni mbër boo fi jël boo fi laaj wala dara rek boo wax ni sa diggante ak moom combat la même bu logique sax day jàpp ni moo la raw wala dara. yaa ngi dégg moo tax doo bëgg di wax mais man maa ngi fi pour mbër yëpp xam nga Moussa dafa war a ñëw ñu bëree Moussa Ndoye ñoo ñu bëri amul combat amul combat Zarko mu ngi di bëri wax di telli telli boobu ba léegi xam nga na ñëw ñu bëre moo gën wax ñu. ñëw ngaa dugg ci Zarko. waaw Zarko Zarko du dara Zarko mooy loolu day nappe ni rek li muy xeeñ di woo ko quoi xëy na gars ñoo xamul nu mu demee rek mais moom xam na bu baax. fu ngeen xamante ne. waaw moom xam na xam na baax a baax a xam na li wax bu baax a baax aussi moom li muy xeeñ di woo waaw. Double wax ji dina neex ni mais est-ce que lu ànd loolu avance Zarko ak Zarko ni mu sadigee Zarko ni mu mel Korea si biir lamb est-ce que mën ngaa dékku Zarko. war na yàlla avance Zarko biroos ak meew la laa la wax moo gën a neex moo gën a neex moo gën a neex xam naa ko boo jëlee avance am waa Rebeuss duñ fii ci biir. barke Seydouna Mohamed moo déggoo la wala avance am moo dàq Kousan laa la wax biroos ak meew la. la wóor na rëcc billaay billaay wax quoi dama koy muy wax rek billaay walaay te mais nañu ñu bëre quoi yooyu yëpp ay combat la xam nga. waaw yooyu xam nga mooy loolu mooy li nga wax rek xam nga tey jii nii adversaire yi ñu war a bëre yéen xam ngeen leen ñun nekkuñu pour benn adversaire mooy li ma la wax tey adversaire boo fi nekk dama war a bëre moom wala dara tey dañuy taxaw xam nga ne dala raw wala dara comprendre nga mais ñun nañ def douze combats bëre ak ay bu ñu bëree day neex bu ñu feccee day neex te dañuy mobiliser comprendre nga kon dañoo war a bëre daa yi ñoo war a ñëw ñu bëri amuñu problème promoteur wala dara de mais adversaire yi mooy problème des fois aussi tam benn tam des fois dinañu wax ay adversaire yoo xamante ni moom suñu lay yàqoo parce que dëgg la yàlla bëgg quoi du adversaire yëpp lay yàqoo si ñoom am na si yenn adversaire yoo xamante ni ñun dinañ ko proposé ñun ñu xool ni yi arrangé wuñ ñu bañ ko jël parce que loolu ak làmb ñoo ànd quoi noonu la demee nag kontaan naa ci yow. waaw ñoo faru ñu la jaajëfal xam nga di féliciter suñu booy bi mbër daal ñu koy félicité bu baax di ñaan yàlla aussi tamit suba am na ñaari combat Océan bu Rebeuss day bëre caatu mbomba day bëre ñu ñaan yàlla may leen ndam le 26 am na ñaari combat fils de Serigne Ndiaye Gamsi Boy ñu leen di ñaanal yàlla may leen ndam xam nga Ousseyn yow foo nga ñëw gi Rebeuss quoi non dama koy def bilaay ñëwal quoi foo nga ñëw école ba parce que ay ndaaraan fa te booy macha allah ñu ngi def ay preuve yow jàppal bés rek waaw incha allah amul problème yow dinaa la woo nga ñëw école bi incha allah rabi ok